ji ñu bëri sax ñi ngi ci naam waaye tam di waajal élection 2024 waaye tam am ñoo xam ne ci seen représentant ñi nga xam ne daal ñoom rek ñoom fas yéen demal seen bopp parrainage député yi jumtukaay ndax li nga xam ne daal moom la bëgg a dajale kat waabale ko loolee mu mën a jël njariñ waaye dafa mel ni sax loolee sax amagul ndax am na ñoo xam ne daal sonn lool la ñu def ndax dafa mel ni kat coono gi moo fañ seen kanam ñu bëri nag moom am ñoo xam ne ba nu jëlee seen parrainage ci lañ gëj a dégg am ñoo xam nag ñi ngi yaakaar daal ci électeurs yi ne kat daal leen jox fulla ak fayda ngir rek mën dégg seen discours waaye am ñoo xam ne sax talul leen ndax dund gu métti gi am ñoo xam ne tamit yaakaar na ne daal lii nga xam mooy parrainage bi dana jur njariñ waaye ñu bëri kat dañ ko sax talul ndax daf mel dañ leen a dumóoyi waaye tam am ñoo xam ne ñi teg ay critique ndax gis nañ ne ñu bëree bëri yëkkati jëm ca parti bi duggaat ci parti bi maanaam daal di cuuc fee cuuc fale am ñoo xam ne kat moom fokk rek ñu daal di lamb seen poos joxe xaalis ngir ñu ma leen parrainer am ñoo xam nag dañoo mer ba fut am ñoo xam sax ñu ngi xultu rek waaye ñu bëri tamit ci électeurs yi daal di banque seen loxo ndax gis seen ne ñu bëri kat dañu mel ni sax ñoom dañoo waa damm wala sax dañoo tay ci nga xam sax mooy politiciens yii waaye ñu bëri yaakaaruñu kat am parrain doy kon candidat yu bëree bu deful nank fa lay jaare daal di bàyyi ba faw ndax dogal gi nga xam ne tamit xalifa général Demba jël na ko Serigne Mountakha Mbacké ne wàllum politique bëgg ko fee dégg fii fi nga xam daal moo di Touba lool tamit ab artu la kon ki nga xam ne mooy xalifa général kullu murid moom nee na du recevoir wala sax du dalal benn candidat tey bokk ci joŋante tey kon wàllum pël nag moom dafa mel ne Touba dañ koo dumbooy kon tamit xalifa général ci boppam moom wax na bëgg-bëggam ndax bëgg na kat kenn bañ koo tànqal kon daal moom bëgg na kat ci Touba kenn bañ koo tànqal waaye tamit gis nañ ne ñi nga xam ne acteur politique ñoom tamit war na noo jàngat ci ay leçons yi nga xam ne moo tukkee ci parrainage bi waaye tamit ak li nga xam ne mu ñu ko ci xaar Sénégal nag ñoom ndax bu deful nànk daanu boycotté élection yi banque seen loxo bañ a dem waaye tamit ci nii mbaa ci ne daañu tabb nit ku nga xam ne kat moo fas yéene wuutu kii fi nekk wala sax daa di wéy li nga xam ne kay mooy ndonoom kon tam yaakaar ne politique politicienne na moom dafa mel ni sax ñoom moo leen sonal ndax ñu bëree bëri gis ne kat dund gi metti na ci ak foo mënta féete ak loo mënti dégg ndax yaakaar tamit candidat bañ nar a daal kooku moo mën a saafara seen jafe-jafe.